ki yi bàyyi xel SBT am nañu mbégte ak kontaan te ñëw fi nga xam si ni moom mooy arène nationale euh, dajee fekk ki xam si ni moom moo woote la 14 mai incha allahu taala muy Ouzin production bokk ci làmb jógee nag ci ay tàkkusaan yu mag a mag a mag Ouzin ren seeram tànga na de ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokki internet yi waaw Mass maa ngi lay fay di la ziar di di la baalu àq ci weeru koor wi di baalu waa axlu làmb ñëpp eh, àq di baal ñëpp ak di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkeewaat déwén incha allah waaw ñu ngi jëmaat <laughs> ci journée le 14 mai sama yaram tàngul sax yow na sa yaram tàng rek parce que lu baax nga ne Ouzin kaay <laughs> waaw di sant yàlla daal waaw di sant yàlla bu baax waaw. ñu gis ne macha allah fan yee woote nga fi diggante boo xam si ni tàng jër diggante capitaine ak Calamber ñu ne ñu ne yaakaar nga woote ci diggante ki nga xam ne moom mooy musique ak ki nga xam si ni moom mooy Angleterre. waa sant yàlla bu baax xam nga jóge woon nañ ci le 21 novembre diggante professeur Mané ak euh, Sagna ñëw ci le 8 mars ci diggante euh, euh, capitaine ak ki xam mooy Thialy Mber yàlla mi dara teewul bon ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin di duggaat nag ci beneen journée bu ñuy préparé ni muy le 14 mai ci diggante Angleterre ak Moustique di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si jàmm ak salaam ba ñu pare ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. macha allah ku wax Ouzin production xam ne moom la ñu gis ci kanam waaye eh, ñu nekk ci ginnaaw bëri na macha allah parce que saa njàmbur ak professionnellement yaakaar naa keroog amateur yëpp seen xol sedd na rawatina mobilisation bi. te tey Ouzin Ouzin production bu am na ay partenaires yoo xam ne tey moo tax tey Ouzin man li naan feccam neexee nday jaa jàpp ci mbagg ku si mel ak nga xam si moom mooy ay partenaire am ku si mel ni euh, nu mu euh, ah nee na ministre ministre de la jeunesse neen Fatma Tall ak euh, ki xam si moom mooy job euh, social ñoom say partenaires partenaires yi macha allah. waaw sant yàlla bu baax rek ñooñu samay partenaire lañ comme ni nga ko waxee ki si njëkk nag mooy euh, ministre de la jeunesse mooy Néné Fatoumata Tall wax naa ko ci interview yi passé nit jëmm la boo xamante ni lu Ousin di dugg mu dugal ci loxoom dugal ci xalaatam loolu kooku partenaire bu mat partenaire la maa ngi koy sant bu baax mooy Néné Fatoumata Tall d'ailleurs moom laa parrainé woon journée bi passé le 8 mars ci diggante Calamber euh, ak capitaine bon ñu bëri ko ci jàmm ba làmb ji jeex ci jàmm moom it mu def ci li mu ci war a def vraiment ma ko ci sant di ko gërëm sama digganteeg euh, Moustapha Mbengue moom diggante mag ak rakk la waaw mu nekk grand bu ma comprendre grand bu bu bu bëgg li may def grand bu may jàppale parce que bu ñu nee seemi rek dañuy wax naan euh, union régionale mutuelle de sant Dakar parce que suñu mbébét man ak moom lépp mooy feebar faju feebar mënul ñàkk ci doomu aadama mais nga faju ci njëglu yomb loolu bokk na ci li nga xamante ni moo tax mu nekk sama partenaire ci biir làmb ji kon maa ngi koy sant muy Moustapha Mbengue de passage tey lu Ousin nekk rek vraiment dina ci dugal xalaatam dugal ci dooleem dugal ci moyen vraiment lépp lu may def mi ngi koy contrôler mi ngi xool Ousin ndax ni muy doxee nii maanaam dina ci gis boppam wala yooyu nëpp daal kon kooku dama koy sant daal aw ma fayam wax nga si job social kooku tamit bon ñi nii mel ci man rek na mel ci man mu yor groupe 7 vision bokk ci promoteur yi état agréé ci 700000 logements yi moom it mu nekk ci di ci liggéey liggéey bu doy waar mu nekk sama grand bu baax vraiment comprendre ma di ma jàppale ci yu bëri. beneen bi staff bi bon su ma limee damay juum mais xam nga staff Ouzin production yaatu na yow mi maas ci nga bokk Thier ci la bokk bon ak ki nga xam te ne mooy bii bi ñoom Père ñoom ah, nu mu tuddati ah, Khalifa Badji bëri na ñi nga xamante ni bon staff bi dañoo ne ci ginnaaw mais Ouzin nañuy gis ci kanam nii rek mu doxal kon loolu sant yàlla la bu ñu demee ba yàlla dimbali ñu ñuy monter ay combat lu mat trois na ci saison bi grâce à ñooñu moo tax kon awma seen fay di ñaan yàlla nañ gën a jàpp rek te xam ne liggéey bi bon métti na gaa métti na trop nag mais nag fu bon sant yàlla rek macha allah euh, SBT Média la di wax ne ngeen abonné ba seen tous notification bu ko defee vidéo yi nga xam ne SBT mi ngi koy ngeen mën si ànd ñun baax baax ndax wax naa ne avant pendant après SBT Média moo ci mën ku xool 8 mars bi passé xam ne am na liggéey bu am solo bu ñu ci def mais mu ci 8 mars bi amoon na spécial drapeau jigéen joo xam si macha allah kër bi mu duggee bi mu duggee si stade bi euh, stade bi taaru na de waaw Mass yow moom euh, macha allah ci SBT Média maa ngi wax di di di demander bépp euh, amateur wala bépp supporter fan club boo gisee SBT Média abonel ci seen bi parce que mooy chaîne bi vraiment mooy chaîne bi nga xamante ni mi ngi jàppale làmb te mi ngi ñuy jàppale te ñu ngi ci gis suñu bopp vraiment Mass oyof foo ko woo mu ñëw bo ci ay nelawam sax na nga koy woo ne ko lii laay def mu bàyyi li muy def ñëw kon loolu ab cant la voilà li nga wax ci combat bi ma pare ne woon Fifi Ba vraiment de passage maa ngi koy remercier parce que tey journée bu melee noonu mu mel keroog grâce à Fifi Ba la Fifi Ba aw ma fayam gis naa ni ma jàppale nekk ci ginnaaw président Assane Niang muy jiital wareef gis ngeen ni ñu ñëwee fii keroog maanaam ki nga xamante ni maanaam marraine la ci journée mu jënd 4000 billets loge man maa ngi koy door a gis te bëgg sama journée réussir moo tax mu def loolu kon kooku vraiment maa ngi koy sant di ko gërëm di ko wax ni vraiment fi mu teg tànkam ci jiital wareef foofu la aw ma fayam di ko encouragé bu baax nag di ko encouragé bu baax parce que làmb bon liñ ci bëggoon yëpp mooy mm, réussite am te am nañu yaakaar ni am na ko visibilité bi ñëw na vraiment macha allah kon daal fifi encore une fois loo jàpp doyul loo jàpp ci président Alassane Niang doyul loo jàpp ci jiital wareef doyul te tamit bon ñun jox nañ la suñu bopp daal incha allah voilà. ñu di ko féliciter di ko nuyu de passage keroog bi mu dugg si stade bi macha allah Ousseynou ne ma non kii mooy kii mooy Fifi Ba macha allah di ko ñaanal bu baax a baax édition boobu dem ba nekk ay 1500 édition ba ci ay sët macha allah suñu borom am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax Ousseynou moom koo xam xam ne nit ku mën xam sa loolu ñu xam moom macha allah ñi la jaajëfal bu baax a baax a baax mais ñu ñëw ci le 14 mai incha allah taala diggante musique ak ki nga xam si ni moom mooy euh, Angleterre Angleterre ñu mel ne 8 mars bi Angleterre moo doon bëri grand combat digganteem ak ki nga xam si ni moom euh, mu tuddati euh, bi parce que booy remarque dafa mujj blessé nga xam ne moom mooy élection yi biir élection yi macha allah mais ci automatiquement pour comme am nga date ba pare nga euh, nga wut grand combat muy diggante capitaine ak ki xam moom mooy Calumbeer keroog bu ñu bëree fii amateur yëpp seen xol sedd ñu jëm ci la 14 mai diggante Moustique xam si ni moom mooy Angleterre combat bi préparation bi lan lañ mën a xaar le 14 mai ci événement est-ce que mën nañ gis lu lu gën a garaaw li ñu gisoon le 8 waaw sant yàlla rek li may wax yi daal li gën a garaaw nañu gis parce que Angleterre du yàq bés Moustique ku ko xam-xam ne du yàq bés mu nekk combat bu doy waar ni nga ko waxee noonu la Angleterre moo waroon bëree combat bi passé en ah, remarque xaw a léegi nag euh, ñu aj combat bi bon yàlla muy dërëtawul combat bi taxawee ci Moustique ci diggante ma Angleterre mais li may wax dañ ci gis cosaan. nañ gis aada dinañ gis culture dinañ gis li nga xamante ni mooy bëre tamit waaw chorégraphe yu gars yi xalaat rek dinañ ko gis fii incha allah parce que ñun ñu ngi ci làmb ji daal di raam ndànk-ndànk di seet luy bëggal amateur yi te boo xoolee combat yu am na yeneen combat yu doy waar yu ci nam parce ku mel ni Petit loo ak Bébé Garga man lañ ci parce que fi ne xam nga fan yii ay combat espoir dafa xew macha allah gis nañu Ama fan yii la mu tëgg fii Ardo ak Mbañ Kayre keroog gis nga stade ni mel ah, mu mu bëggoon taxaw foofu petit ak ki xam ne moom mooy Bébé Garga mu mel ni tey la 14 boo woote woon ne petit ak Bébé Garga yaakaar naa stade bi ñoom ñaar rek amaatee dañu wusi tey mën naa boobu da nga def maanaam 5 grands combats ñoo xam ne 5 yoo xam si ni ay grands combats donc ñu mais dama la si dollil Petit Lo ak bébé Garga dama la si boolil yaa xam bawal ak Ramdan kooku tamit euh, le 14 la fi incha allah ma dolli la ci ki nga xamante ni mooy euh, booy booy booy waalo ak ki nga xamante ni mooy euh, kii la Yakenza kon tey ñooñu vraiment mm, ñu ngi leen di xaar le 14 te xam naa ne amateur du duñ duñ duñ duñu duñu mer dinañ béggee beneen bi ci des ma damay félicité sama doomu ndey Amadia ci journée bi mu passé moom tamit sama doom nday la déggoo ma naan ko da waroon jël la 15 ma jëlee la 14 nga jël la 15 mais loolu la yàlla dogal Ama Dia maa ngi koy remercier bu baax di remercier petit parce que tey jeune promoteur yi nekk ci làmb yëpp di di di di innové dañoo yooyo dañoo yooyoo euh, félicité dama ci jaaraale di félicité moo Moguet di félicité Souleymane mi nga xamante ni ñoo daje fi léegi ñuy régulariser seen combat la 15 yi parce que man bu yàlla dogalee ma tëgg la 14 Souleymane tëgg la 15 muy combat ñoom lagrose ak ñoom neex yi ñoom bàyyi Baye Mandione ak euh, ki nga xamante ni mooy Zarko vraiment ñoom Boucher ak ñoom tey journée boobu noonu Souleymane taxal ko ñooñu tamit dañoo yeyoo làmb di leen remercier encourager leen parce que moo gën nekkul États-Unis rek jël xaalisam yemale ko mi ngi koy dugalaat ci biir réew mi di jàppale ñun ay promoteur lañ bu ñu gisee ku ñu jàppale ci liggéey bi dañuy dañuy lëkkaloo jéem a xool nu ñuy def ba ñun ñëpp suñu force yi nekk benn kon kooku mi ngi yokk làmb wàññiwu ko di ci remercier waale bu baax per Bécaye mi nga xam te ne moo leen accompagner ci affaire yi kon loolu benn page bu ma doon kii si ñoom la rek mais li ñu mën a wax daal ci Ouzin Production na ci ñëpp bàyyi xel ñu ngi woo amateurs yi ñu ngi woo partenaires yi ñu ngi woo nit ñi ñu jàppale ñu ci sponsor parce que ay ndaw lañ benn groupe la bu formé seen alal di ko dugal ci làmb kon tey li ñuy def nii dañ ko def pour innover innovation boobu na ci sponsor yi ñëw na ci ñi nga xamante ni mooy euh, partenaires yi ñëw di wax état nañu ñu ngi koy tàllal loxo bu baax ci liggéey bii ñuy def nii parce que ñun lii nañ am amuñu leneen lii nañ am ñu ngi ciy def suñu ñaq mu bëree que ñu ngi koy def pour au moins élever ci làmb ji parce que làmb ñu ñoo ko moom tey bu état jëlee arène bu toll nii def ko vraiment deselatul làmb dara li mu desee làmb mooy ay ay ay accompagnement ñu ngi ko ciy xaar di félicité ki nga xamante ni mooy Bira Sène ak équipe ñu ngi koy ñu ngi leen di féliciter di leen remercier làmb ji mi ngi tegu ci yoon bu ko kenn jéem a yàq ñi fi nekk yàlla teg leen fi ñu jël làmb ji teg ko ci yoon Bira Sène ak équipe muy liggéey normal bu benn seytaane yàq li muy liggéey nañ ko encourager jàppale ko parce que tey nii làmb ji demee nii sant yàlla rek dañuy ñaan lépp continuer ci nii rek jafe-jafe nag mënul ñàkk waaye nag jafe-jafe bu amee dañuy toog régler ko te jafe-jafe gisaguma ko ci ñoom bu tax ñuy régler kon bu ñu yoree lu toll nii ñu dénk ko mu di ko liggéey en tant que jeune promoteur dañ koy encouragé di ko féliciter di ko ñaanal yan bi oyof ci moom muy Bira Sène waaw. daal le 14 incha allah mën nañoo xaar journée boo xamante ni amateurs yi membre duñu na incha allah jox naa leen rendez-vous le 14 fii ku ñëw fi moom di nga xam ne vraiment bu dee làmb rek nga namoon incha allah di nga màndi di nga di nga màndi làmb incha allah. xam naa ni dinañ ci amaat yeneen liggéey yu am solo ak SBT Média dina seeti mbër yi ci koor gi ni ñuy préparé combat bi ak remise drapeau yi dinaa fi indiwaat yeneen parrain yu yu yu am solo yoo xamante ni liggéey réew mi rek leen tax a jóg kon loolu maas falaa jaaree. mënu ma laa bàyyi parce que fan yii coow li bëri na ci diggante rëg-rëg Sa Thiès ah rëg-rëg Lac de ma for ci wéy booy Ouzin Production mi ngi ciy dox suuf. <laughs> waaw rëg-rëg Sa Thiès moom. amoon naa ñi ko buggoon parce que nit moom booy wax da ngay wax te yàlla tax parce que aw ma budget bu ko tëggoon mais amoon naa ñoo xamante ni benn partenaire bu ko buggoon mais biñ ci démarché xool nañ xool xam ni ñoom it li ñuy laaj ci combat boobu seen budget matu ko ñu bàyyi mais di félicité nag ki nga xamante ni moo ko taxawal mi per Gaston Mbengue mu nekk sama idole père Donkin parce que man yàgg naa wax ni su ma duggee ci làmb moom la parce que ci moom laa gisee ba. toog ci làmbam laa toog xool ba am amuru tëgg làmba kon vraiment Père Gaston de passage ñu ngi lay remercier di la féliciter di féliciter Makan tamit Makan li muy def parce que tey ñëw na ci tànk papam mi ngi déglu mi ngi liggéey boo gisee combat bi passé maanaam ni mu ci taxawee xam nga vraiment sant yàlla di ko ñaanal daal fi mu teg tànkam yàlla na ko yàlla gën a jàppale gën ko dimbali dimbali ñu ñun ñëpp ba li ñu bëgg lépp mu sotti incha allah. Sa Thiès bi demagut fenn coow li bëri. maa mën dix fois maa mën maa mën maa mën est-ce que est-ce que coow li mais c'est normal xam nga booy xool deux ans yu nekk mu am ñaari plan yi génn tolloo làmb su ma ne un an mais chaque deux ans mu am ñu tolloo bañ ne ñoom ñaar daaw seen combat ñor na ñoragul combat ngi ba combat baa ngi door a ñor combat la boo xamante ni vraiment ah ñaari jàmbaar lañ duñu yàq làmb bon di ñaanal Père Gaston mi nga tëgg mu yàlla mottali ko incha allah en général lamb yi ñuy gën a coow ni mu jeexee du neex amateur yi combat bi seetu nga ci ñoom ñaar euh, amateur yi kontaan. non bii bii dañ ko ciy séntu ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ ñoom ñaar ñëpp ay attaquant lañ Sa Thiès bu mi ngi sa kaw Reug Reug bu arbitre sifflé day ñëw jàpp si la kon combat bi nañu wax ni dañ jàpp ni dina nekk combat bu neex ci diggante Reug Reug Sa Thiès xeex non dina am xeex parce que xeex nañu nuyoo. ci xeex na ni nuyoo tàggoo ci bëre noonu moom noonu nay demee. am na beneen combat boo xam si nit yaa ngi ci woon suñu borom euh, euh, ñu jékki-jékki déggaatuñ na si muy diggante ki nga xam ne moom mooy Jackson ak ki nga xam ne moom mooy ñàkk jaruñ foo ci toll. non ngi ci incha xam naa ni bu ñu jógee ci lii nii rek lay moom ñu ngi ciy dox juguñu si ba léegi ñu ngi ci wax ak laxaat bu waree mën a nekk rek bu ñu waxee lu raisonnable ñun ñu taxawal ko parce que loolu. combat bi ay prix moo tax combat waaw waaw xam nga combat moom promoteur day def lu mu mën nag surtout man sama genre yi man bokk lu ma mën bu ñu ma waxee lu raisonnable bu ko sama poste attene ma def ko bu ko attanul ma bàyyi ñu ngi ciy waxtaan nag différence bi ñu xaw a kii soriwul mais tam ñu ngi xool daal li ñu mën. mën nañoo xaar la 14 boo jógee nga tëjee ko saison waaw loolu nag lañ bëgg incha allah même bu dul bu dul combat boobu sax la 14 bu jàllee bu ñu jubawul ci biir dinañ taxawal leneen lu ñuy tëjee saison. mois de juin bi ci mois de juin wala juillet bi rek incha allah aja production ñu jaajëfal ko baax a baax a baax mon ami mon frère ah, di la ñaan suñu borom def nga àggaleeg euh, sa sago macha allah ndax bi nga ñëwee ci làmb yàggut waaye macha allah ku nekk kenn mënutul wax lamb génn la ci ndax si sa parcours diggante bi fi ñëw ak léegi macha allah def ay journée yu yu am solo yoo xam ci ni soir làmb du ko bind donc ñu ngi jox rendez-vous kon la 14 incha allahu taala si diggante ki nga xam ne moom mooy musik ak ki nga xam si ni moom mooy Angleterre wax naa la Angleterre bi mu mujj fii Arène Nationale dafa dóor mu daanu diggante ak Madji Madji la woon le 8 mars Ousseyn moo naa fii la woon Arène Nationale mu daan ko jël boo xam ne amul benn werante donc mu nekk lamb joo xam lamb amateur la waaye combat bi nga xam ne si ni mooy derby Parcelles Guédiawaye diggante Balla Gaye Modou Lo bu bëggee gis xaar leen diggante Bébé Garga ak ki nga xam si ni moom mooy moom mooy moom mooy Petit Lo ndax Petit Lo mooy waree si keppaaru Modou Lo Modou xarañ Lo le roi des arènes waaye Bébé Garga mooy waree si keppaaru Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 def ko 2-0 ndax Petit Lo ak Bébé Garga dañuy delloo faafa ah, loolu moom rendez-vous la 14 rek incha allahu taala Ousseyn ñu bàyyi la nga sant partenaires yi nga xam ne ñu jàpp rek sant comme ñi fi ma commencé woon rek ministre de la jeunesse nu mel moom la nen na ma Taal kese ak waa tim bi ah tim nenne bi maa ngi leen di béggee bu baax di béggee Moustapha Mbeng Diop social Fifi Ba borom Belgique borom jiital wareef moom it maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm staff Ouzin production ñëpp. président Moussa Mbeng moom man ak moom il faut ñu il faut ñu. non moom dalay laajte rek. mais dafa maa bàyyi. ma nee ma nee ma ni ni ni Mass di waxee euh, couverture maladie universelle indil ma ko kooku moo la ko gën a mën a wax sax ma ne ko ah Mass kooku dafa jàng. kooku fa mu jàngee jàngeewu ma fa <laughs> mais sant yàlla daal incha allah xam naa ni maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm kenn tamit muy As Cissé As Zain production mi ngi koy gërëm de maa ngi koy sant gis naa ni muy taxawee sama bés yaa ngi dégg heure bu ne laa koy woo ku naqare naa jot nag waaye ku ñëpp soxla moo demee noonu waaye vraiment As mention spéciale ci Ouzin production mu ngi ci def alalam mi ngi ci def temps mi ngi ci def léppam maa ko wax fii mi ngi koy def kon yàlla nañu yàlla jàppale gën ñu boole incha allah di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni bës leen flash bi SBT Média Mass <laughs>